donc euh, maa ngi tudd Socé Fall secrétaire général euh, du syndicat national de l'enseignement privé du Sénégal donc tey jàngalekatu privé yi ak ñiy liggéey ci école privée yëpp di ko dalee préscolaire ba moyen secondaire en passant par l'élémentaire dañoo nekk di souffrir souffrance yoo xam ni di dund situation boo xam ni c'est tellement dégradant tellement avilissant que tey xamuñu sax ñun fan la ñuy teg suñu tànk euh, aujourd'hui état du Sénégal daf ñu seetaan parce que ñun ñi ngi représenté tey téeméer boo jël trente yi fanweer yi mën nañu wax ni tey jii ci enseignement privé la ñu nekk. donc te état du Sénégal subvention bi muy jox école privée yi c'est deux milliards cinq cent millions alors que le budget budget bi nga xam ni euh, état du Sénégal def na ko si éducation ëpp na huit cent milliards. je pense que donc état du Sénégal tey joxuñu ñu gëdd bi ñu war a jox. ñu bëggoon vraiment ñu jàppale ñu dans ce sens pour que suñu situation arrangé parce que tey jii quatre-vingt-dix pour cent jàngalekatu privé yi ñeneen jàngalekat yi nekk public bi ñu ngi ci vacances ñun tey jii ñu ngi ci chômage. Euh, du ñu jot seen salaire ñu ci bëri depuis mois de juin sax lañ leen gëj a fay ñu nar a toog trois mois 4 mois début novembre la ñuy xaaraat pour amaat beneen salaire. je pense que loolu état bi nga xam ne mi ngi ñu bokk njaboote war na ci jéem a def dara. pour que vraiment situation école privée yi mën a changer parce que tey jii euh, xool nañ ba xool mais gis nañ ni état bi amul benn considération ci ay doomu Sénégal yoo xam ne dañu jàng ci réew mi am ay diplôme bàyyi seen i njaboot ci kër ga di toppatoo njabootu jàmbur yi pendant neuf mois tey ñu war a dem vacances ñëpp war a noppalu seen xel dal ñu dellu seen njaboot mais non tey jii ñu ngi ci souffrance yu méttee métti métti yenn tey suñu collègues yi ñu ngi ci chantier di liggéey comme manœuvre comme manœuvre maçon manœuvre peintre je pense que loolu situation boobu vraiment c'est honteux dans un pays de droit ay ñoo xam ne dañ leen di dénk avenir Sénégal ñu leen di traité noonu je pense que loolu romb na esclavage ñu ñaan nag sénégalais yëpp di xamal parents d'élèves bi également que conséquence yu ci am ëllëg rek nañu xam ni état bi moo ñu seetaan ensuite suñu patron yi nga xam ni lenn rek moo leen intéressé mooy yokk seeni bénéfice yokk seeni profit suñuy droits sociaux dara intéressé wu leen ci tey jii ñu ñuy harcelé si école yi suñu jigéen yi nga xam ne ay jàngalekat lañu kenn mënu ci am sax euh, euh, congé de maternité ñun jàngalekat yi ñi ci am prise en charge médical mën nañ leen a wàññi ñi nga xam ne dañ leen di verser ay cotisation sociale mën nañ leen a wàññi loolu yëpp nag état bi nga xam ne moo boole njaboote moo tax ñu koy ñaan mu créer direction autonome de l'enseignement privé au Sénégal